nga dese kàttan gu mën a daan Bombardier ah daan gaañ lan mooy expliquer loolu lan mooy sa secret ba tey ji nga am kàttan malgré temps bu gudd boobu nga def ci làmb macha allah. ok d'accord xam nga tey touche <laughs> xam nga tey ma âge de dix seize ans dix sept ans. ci laa nekk champion d'Afrique. koy fàttali léegi. waaw ci laa am na ñoom Yékini ñoom Rock Mbalax xam nga yaa ngi génn xam di tey ëmm seen boobu dafay saf ci laamu ñu nit ñi. c'est comprendre bu sax beneen bi tamit aussi mooy que sport dafa am lu mu laaj mooy il faut nga lekk lekk li nga war a lekk da nga ko war a xool waroo lekk lu ne récupération bi aussi dafa war doy ba pare tamit il faut médecin de la saytu bu baax ba pare tamit aussi il faut nga xam heure yi ngay entraînement ak heure yi ngay récupérer du dëgg toujours su lool la ba pare tamit aussi man entraînement suma famille suma ma génnee dem rek farata moom may tax a jóg mais bu weesoo loolu rek damay toog suma gàlle ay pétanque laa fay nekk ak suma gaañu Abdou Ndiaye xam nga des fois ma dem gàlla lañ ñu toog waxtaan du genre xam nga damay gérer tam aussi suma suma suma suma yaram damay nekk suma yaram quoi exactement loolu la aussi mm. dafa baax ci champion mm. parce que wax nga ko ah des fois nga wax nga ni ñam nga ñam naa défaite <laughs> ñam naa victoire xam naa ñaar yëpp lu muy saf mm-hmm. du dëgg mm-hmm. euh, am na ay moment mu mu jafe woon trop boo dul loon gaynde parce que boo est-ce que di nga dellusiwaat au top ba dégg roi des arènes. exactement dama commencé ci zéro. te mm-hmm. aussi man banlieusard laa dama yor esprit fighting du dëgg ba pare aussi dama am jaar jaar suma àdduna. Mm-hmm. dama am jaar jaar bu tar moo tax li sam papa jox Eumeu seen dafa dee ba pare di dox. Mm-hmm. dama maanaam. dër nga xale laa mais am naa expérience ku dund cent ans. waaw parce dama am ay jaar jaar ci mbedd laa yoru ko dama am ay jaar jaar yoo xam ne dara mënu ma mënu ma. perturbé voilà merci. wala soo gisee Balla Gaye am na combat mi xaw am tuuti jafe-jafe dama ko lancé message. Mhm. na ko xale nga jugal nga joobaat. parce que champion la warul def nii carrément. Mhm. parce que am na lu muy indi ci làmb. lu dëgg parce que tolloon nga foofu ci benn moment toog naa quatre ans yoo xam ne. Mhm. bëri parce que maa ngi ko commencé suma combat ak Moustapha Gueye. waaw. ñu waree ne suba la combat combat bi yàqu. ma ñëwaat ci Xaadim Ndiaye moom difficulté ma toog quatre ans bëriwuma. kenn déggatul Eumeu seen sama combat ak Balla moo tax gars yi ba muy bëri Balla Gaye sax kii de Balla Gaye da koy defee voyage c'est comprendre wa Balla Gaye mais man intérieurement xam naa ne Balla Gaye xamaguma miinu ma mais xam naa su ma utee dooree taxaw rek mun naa am sens daan Balla Gaye dëgg mais nekk na mooma tamit aussi yu difficil moo tax di nit bul bul ñàkk ba yaakaar ni doo am mais bul am tamit aussi ba yaakaar doo ñàkk waaw làmb bul am doole ba wóor sa bopp mais bul néew doole ba yaakaar ki ngay bëre moo la man sax fu ma bëgg waxee <laughs> voilà loolu mu life life moo demee noonu aigle bi pour mu jàpp sax dafay fight mhm. waaw dafay xeex ak lapin bi wala muy jóoki pour am àdduna fighting la quoi mhm. du dëgg te góor yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg góor coono moo ko jig quoi mhm. voilà man su may entraîné soo am na yoo xam ne su ma bi ay moment xam ko fàttalikoo sama bëñ sax dama koy màtt waaw koy mat voilà parce que damay daf may. am àll voilà exactly loolu quoi ay góor lañ ñun fayat rek moo ñu war quoi. Mm-hmm. waaw sport la nag quoi làmb la ku ne mun na daan moromam. waaw combat bu bu neex la ñuy bëre maa ngi moom quoi làmb la. Balla situation bi muy wax ni pratiquement.